rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nu ngi leen di baalu àq bu baax baalu àq goo xam ne wax dëgg yàlla yéen itam war ngeen ma caa euh, war ngeen ma delloo njukkal njukkal li mooy lan mooy baa baalu gi li ko jur da leen jure pay gu rëy ci yàlla toogaay bu yàgg bi lay baalu te bu yàgg bi daf leen jural lu rëy ci yàlla fu ngeen ko toogoon fu fii toogaluñ ko toogalu leen ko ku dul kii day neen te toog nañu toogaay bu ëpp bii gën koo gudd ma jaanan kon nag yëf ga génn gi moo doon bañ dugg ci waxtaan wa ba ca kanam ñu dog ko te fii ba timis dafa yaatu kaa lu ne xëj na fi léegi nag nu ngeen jox sunu doom di sunu xarit di sunu sëriñ mu ubbil ñu ñu commencé waxtaan bi ñu bañ a bari jaabante seen naa fi kuy niroog goote ñu tudda turan xam lu muy wax foofu turan waaye di ne ñu xeet ci biti bu soobee sëriñ bi laa bëgg wa aatul buyuuta min abwaabiha mooy fii sunu kilifa tey maa ngi koy gërëm it ndax bi may wax mbir mi jotuma ci diisoog moom te waroon naa ci diisoog moom waaye la ma engagé ba tax diisooguma koog moom dinaa ko wax ginnaaw gi nag la ma sama doom di xaritam Habib Sakho wax na fii indi na fi ba tey moom sëriñ bi ci xalifa maa koy tënk sànq ne ko it ndekete man sama ndëng laa nara dem si bi may ñëwit xaaraan see ma indi woon xaaraan si tiyaama ma indi ngir xemem ki ma gis ndekete yoo ndëng li sama los bi laa yëg ni ci yow laa ànd te ñu bëggoon nag mu ubbil nu déy naa ko sax li ma bëgg ñu dëppoo dit li mu bëgg suñu safaanoo woon bëgg bëgg itam dina am façon waxtaan wu ñu waxtaan ba déggoo foofu am na xalifa bii laa bëggoon man xamu papa xamul xamul suma papa xamu yaayam xamul suma yaay bërki démb la xamante ci toolab yàlla dama sëriñam dama doomi sëriñam dama goro mbokk ñu fi ñu jëlee jabar sunu toogaay bii ku doon jeex toogaay yi yàlla yi bu ci mel nii dina néew ndax dafa sell du yàlla kese du yàlla ak sa sëriñ du yàlla ak sa goro du yàlla ak sa xarit yàlla kattal te ma umiru illa li yaabudullaha al muxlisina muxlisina la ñu wax وسنسدل محسنين jotaay ngi bu jafé bi jotaay yalla yi du jeex waaye bi xabar ci sama xalaat xabar la boo xam ne nit mën na fee jële lu mu foogoon ne mënu koo jële fii te arab ne na léeg-léeg nit amee lu rëy mu amee ko fu mu yaakaarewul woon ne mën na faa am dara léeg-léeg nit ami fu mu yaakaarul woon ne mën na faa amee dara lu gën la muy am fu mu yaakaaroon ne mën na faa amee dara léeg-léeg nit am fu mu yaakaarewul woon ne mënu faa am dara mu amee fa lu gën la mu yaakaar lu gën lu mu mën a amee fa mu yaakaaroon ne mën na faa jëli dara ربما يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر sunu sëriñ bi ubbile jox ñu ndigal ñaanal na yàlla ñu ñaanal way jur ba fa lislaam yem sañu ñëw jéggi fa lislaam yem ay maam bi fa ñu toppante ba fa lislaam coupé yàllaa ko xam moom mi leen bind jox leen ko ci nag ñi mu nar a jur ba fa lislaam di coupé ci biir loolu moom ñu duggaale ci dugal ci suñuy wajur dugal ci suñuy doom ak i xaritam ak wóolareem ñi mu may jabar ak ñi ko may jabar ak i sëriñam kii daal buñ ci jukkee ba noppi door a tàbbi ci waxtaan wi te def ko li laay war a suuli bi bisimilahi sëriñ bi yàlla na yàlla jox sa martaba maagiya te tëral la ko boppam seenu ne daal waxuma Ndakaaru waxuma Tilleen àddina laa wax fii nu ne mu tudd àddina bari na dafa waaye ñooru ëmb ko jëma moom àllaaxira maa day taali te balaa àgg mu tuuru ndax aqabaat ah, yi dafa bari xoqabaat yi dafa bari xoqaba bu ne dafa narul nga jéggi jéggi waaye dara luy jëriñ nit ci bàmmeel bu ci ne loolu la nar boo xeex ba jéggi ko it dana ndogale ñaari moom ci biir jëmm ku yàlla dimbalewul da nga mucc ci bul foog ne sa tiyaaba dina ànd ak ànd ak yow ba biir bàmmeel déedéet balaa ngaa ba mu tuuru danuñ ci yàlla ngoor ngoor boo xam ne baraba tax nga ngoor ko la ba tax nga ngoor ko bukkut ak moor ba jëm jëm jëm fa naroon a jëfe mu tuuru bi nga laata àgg yàlla nañ ci yàlla mos. ngoori tiyaaba yi nag ci ëpp yëpp bu borom musul ci ñaar yii bu muccul ci ñaar yii ak gëm dina jafe te moom jaxasoo yu nu bari Habib Sakho sama taaw bu góor mooy xaritam ba ma xamale moom waaye gis naa ci moom lu daal sama xel bii jamono ku ci njiit lu lislaam laa wax te fexe woo ba xëwal du la yëngal ger du la tax a tàllal sa loxo bul foog ne mën ngaa àgg ak léegi feeg buñ la xëbalee nga tiit biñ la geree nga nangu bul naa gu mukk ne di nga fit wu rëy koy may nit ne da koy donn ak doylu fit wu rëy woo donn ak ak doylu mooy tax nit du faale ku koy xëbal du gestu ku koy ku koy ger waaye tànk yaa ngi tàllal di ci nangoo ger ñu di doo sottal am nga sëriñ bi moom na kaar gis naa ci moom kaar fit ak biir naa ko sax taal bi biir bi ñu ma wax sax fii waaye yàlla bon dara fakkatal doom yàqu ñu néew te ku ngeen séen ñu mën a ci siis yi mu ñëw fi ndeem du dañ ko dencal kuy ñëw waaye nag ñaare ma xojja day ah, ah, ah, jël na ba tàyyi <laughs> cëru ma ma xejj ma xejja mu nasax nga xoj mu njalax njaxlaf jëw na këram ba tay bismillah sëriñ li ma tàmbali woon ci la borom yëf yi tàmbali moo doon maa ngi baalu àq nit ñi waaye baalu àq bi laaj na njukkal ni ma delloo ndax ji mooy toog ay bu yàgg bi njukkal li mooy ngërëmal yàlla liñ ci jële jéego yi mu wax ne am na ñu ko dox pour fekk fii am nañu dox lu ko sut fuuf ci neen toogaay bii mu wax ne am na ñu ko toog fii am na ñu toog ñeenti at ci neen ulaayika alqawmi laa yusqa jilisuhum doy na wax naa leen sànq ne adaraa ngi bu foor miinante wuñ dama gis ci moom taxsiiru jëfin woo xam ne xamem loo na ku ràññi ku mu doon yàlla dane dinaa xam jaam bu ma fonk ci jotaay bu ma bëgg bu ma gestoo seen ko fa dinaa jaam bu ma doye dal ci fu ma tere bu ma gestoo seen ko pirim alxuraan mii nag moom dëkkul ca diin bokkul ca borom àll bu du sama doomi sëriñ waxoon naa ko xamuma xaw ma waaye mosu koo manqué col gu yiw lay ñëw déglu déglu bu yiw doomam jii dem tugal sax bi muy bëgg a dem indi na ko fa ñu ñaanalante yàlla loolu sax daaw sax daaw jéeg sax daawaati jéeg ma xam ne yàlla doon ju njëkkii ci la man nag dara safuma dara teesul sama bët loolu alaaxira gimana berjalan ibu dara-daran kita ñi sës ci man xam nañ dama jëm fu ma ragal fu tudda bàmmeel te li ma am ci tiyaaba doyuma mais daf ko xalaat ne mën naa am ci yow tiyaaba mu ut yow tiyaaba moom mi maa ko ne dinaa la indi fi man loolu ma daan soxla dox kilomètre yu bari joxe alal ju bari di ñaan mu sax ndax dinañ mën jot ci beneen mbir moom naa ko ne dinaa fa egg noonu naa ko sax buñ ko def bëccëg léegi nga am fa coonoy togg ndax man xam naa ne ñàkk yàgg pikir ci ginnaaw malaat cuune bu mu jàpp ba nga yaakaar ne yàbbi wu ca dara réer nga pexe ni docteur duut gi ñuy def duut pikir ci ginnaaw yu malaat na ko raccet ñàkk gaa yàgg ciuna bu mu yàpp ciuna bu mu japp ba nga yaakaar ne pikir wul fofu mu dugon dara rere nga pexem docteur ta docteur la ko gëna a gaaw a pexe sëriñ bi eh, sëriñ daal yo so jógee nga xott ko deng te nga wax ma nga portale ma par parce que bi may portale ma ngi ñaan danga ma ko yëgal ma defar man bokkuma ca waaye am na ñoo xam ne seen jotaay minute moo gën jotaay junni minute ci feneen ak keneen bokkuma ca ñooñu na maa ngi ñaan yàlla boo leen ci kenn ci yéen ndax mu bañ a na bi jaay rasulillah yonent bi nee na benn jotaay bu rafet dina wéy ci téeméeri junne jotaay yu ñaaw kaa ko xatla sama taaw ngi ci hôpital demaguma fa fii sama waa kër géej nañu ndakaaru waaye sama soxna yi yi ma yàlla dénk ñoom ñëpp fi la indi tey gisaguñ ma ngir si sama doom jooju ngir yàlla bakki nit ki sama doom di sama jarbar ñu di ko wax koora faal baax ci lislaam lool une heure de matin la ma yéeg yéeg démb ànd fa sax di may ñaan tey jii ak teew demuma fa te ngay bébé ke demuma fa kii laa fa dama bindoo su ma yàlla na toog ba wax damay fonk wax maa ngi bëgg a wax loo xam ne du du tiitiru buntu sant yàlla la yonent bi daan na wax ne maa leen gën tiitar taxu su ma doon tiitaru wax lu ëpp loolu ñu ne kon nooy waxe lu ëpp maa leen gën mu ne kon dama naan bu dul woon man duñ leen bind loolu doo gën a foor maa leen gën min ba bi taaddi si niama kooku jumla la xabar jàngale sukkurun min ba bi taaddi si niama sukkurun waxtaane xiiwali yàlla du tiitër sant la andéet on na boraan bii bërki dimb am na sama mbokkam taalibe ma seet si di wax affaire u baytulaay la arab ma bi bu gouvernement mënuma koo am am dara jam way yek naa ne daal juróom ñett fukki nit ak ñeent dem nañu baytulaay la arab ci sama loxo la jaare te bu benn bi bu gouvernement jox ma ya demen lo semaine bi sama ñaari mbokki taalibe kenn ci nekk juróom-ñetti fukki junne laa wàññi jox ak benn ak ñeenti téeméer pour béytu bokk naa ñoom dara na xaw ma leen xaw dama bëgg tiyaaba rek man foo foog na mën naa fa am tiyaaba dinaa fa dem xaaraani tiyaaba buñ ma siisee it dinaa dëgër bopp te kii dama xalaat ne ci sama xalaat am na cër ci yàlla man lay wax jënn benn pro naka ni démb xamaguma ni mu tudd kii naka ni démb si daal bi bëkkër mu baax mi li may xër ci moom yëpp naka ni démb xamaguma ni mu tudd kenn laa wax si xale yi na leen bu leen cuune mais fexe leen ba xam na mu tudd démb de waxtu bi démb kooku jëf jëf ju tax yàlla tax noonu lay nekk te xemam koo tax man ama benn xarit tànjang bu dul yàlla nu boole parti boole ma kenn tarixa boolewu ma kenn penc boolewu ma kenn digaloo tool boolewu ma kenn bokk yow fu ñu jabar boolewu ma kenn xarit bu ma am bu mu doon yàlla ma korosé bi moom ku baax la nangu ko yaakaar la ndax tool bale muy ñëw muy toolab yaakaar bari na ñu juddoo ci pénc mooma te dégloo gu ñu prix moomu te am na fanweeri at ak nangam ren ba démb lañ ko doon àggal yàlla na ko yàlla defal li bëgg defal ko bokkam jërëjëf bi jaay rasulillah dafa xër na moom dafa xër kaar nde doon ko bañal ay sax te sax coono amul coono amul wax dëgg yàlla coono amul ma wax la tuuti tànjan yéen a may déglu fen neexul fen na neexul wala ngëm yàlla leen yàlla utal woote déglu woo ma de yaag waa ji a ngi waxtaan te yéen a ngi jënoog man nit day teewlu waxtaan li ma fi yàbbi bi ma ko laajte sax lu ne laa de bu ma ko yàbbi te déglu ma damay noppi fen neexu dara neexu ci olof fen mooy lan fen na neexul fen na neel mooy palaar dara neexu mooy jëm mag neexul gune neexul jëkkër neexul jabar neexul patron neexul surga neexul kon kon kenn neexu ndakaaru neexul tëngéej neexul abidjan neexul màkkam neexul france neexul kon fenn neexul dara neexul fenn neexul gune yu ndaw yi noonu seew gune yu ndaw yaa ngi noonu seew di borom kër bër kenn dafa yónni njënd mat borom kër yaa ngi noon seew di gune ba kenn dafa laaj dépense fenn neexul nee ma fu ne àjjana ñuy sonn ñëpp di gor àjjana waaye sunu kër gii kër gu ba kër goo xam na borom moo ko sañ ci timis boole kooku jooy maam Adama timis na ak si ci àddina li yëkkee jooy yu kër gu borom sañ ci timis boole kooku jooy ku fi juddu ne da ngay ut bannière da ngay jagin xamula ne loo yare di ko yare di ko te juddoo ci kaso sa bàyyi def fot ak sa yaay ba ñu tëj leen ci kaso ba ci biir kaso nga juddu loo xamante xamante war a bàyyi sa xel ci sa bopp am de ku ñu tëj sa bàyyi après ba matagul te jaare ci sa yaay nga juddoo ci biir kaso màgg ca war ngaa yaru am de ñun ñëpp nag ci kaso lañu juddu maam Adama nu juróog awa foog la ñu def ñu tëj leen fii àddina kaso kon ku juddoo ci kaso sa baay ñu tëj sa yaay nga juddu ci kaso ba war ngaa bàyyi sa xel ne am nga kilifa. du noonu ñu ngi sant yàlla bu baax sànja di doolee am yaakaar ci kii ndax sànq am na ku ma fa fekk ku ma yaakaar. ma wax gént bu mel ni gi kii gént te fu mu ko gént sori lool di ci ginnaaw bitim réew mais ma nag ñetti at ngi ma di la rëbb pour wax la gént gi fu ne laa la laaj ndeke am na ku ci kër gi di xaritam ku ci kër sëriñ bi di xaritam di ko jooytu ba kii dégg ko ne ko bu fekkee de yàlla dogal na mën naa am nga gis ko ëllëg mais moom décidé woon na dem campement parce que mu nga jëm màkk àggagul fu mu jëm waaye station bi mu fi def la ne du génn réew mi te gisuma ci lu gént gunu boole ci gannaaw Cameroun xaw ma gannaaw fan ay at ma ñëw ci kër gi mu fekk ma fi ànd ak keneen koo xam ne kii sama xarit bii di sama doom feeñu ak moom teraanga ju mu sekkoon ak bàyyam te yëgu ko woon am sama jarwaat bu ma fi fekk duma tàggu yoonu màkk sama waajanaa daf ma noonu soo xamee lu bon xam lu baax bañ a gàttañ ko ba xam lu bon ni muy def ku bon ak fa muy mujjee ku bon nga bañ a gàttañ ba xam lu baax ni muy def ku baax ak fa muy mujjee ku baax nga sut lu bon ngir gis jëf jëmu def ku bon ngeen bu di ut lu baax ngir gis jëf ja mu defante ku baax sa xel yebal la na boo fa demee en face baax nga dem sa place ba fekk la fa kenn ku baax nga toog fa lu yàgg kenn ku baax fekk la fa jugal dem lu baax am lu baax fu mu am boo fa toogee ku baax fekk amul ah, minute ci kër gi ndanda yooyu fekk ma fi kaar mu ne ko man sama njort na xuma li ma doon xeñtu ba ñëw fii yàlla woon na moom mandargaal yi fi fekk ku baax ki di doomi leer kii ba ñu gis gisante nag moom yàgg na ñeme ñu maanaam mu mu wéete kenn wax ko kuy bu saaw ndax dañuy àgg dañuy yàgg dañuy yàgg àll dañuy yàgg àll moom moom bu sori Sénégal lool euh, lu nekk ñu traversé ko maag moom bu seede ko fekk ko bëtam moo tax nga di ko fiireeg sax mu toog ak ku muusu ba ma ko gëjee gis xaw na kañ la yàlla barke daje tey bii ñu kañ alaama la mu doon alaama boog bu dul di di alaama di liwaa liwaa suxra wala liwaa kubra maa ngi di gërëm di leen ne perte amul asgor nag lu mu dugg te du du perte loolu ba am fitir dékku ko te du jur perte mukk du jur réccu billaahi du ko jur tey du ko jur gis nga àddina yàlla ci mandoom daf koy firnde ñuy xale day def dëgg la wa inna alaykum la xaa'ilina kiraaman kaatibiina terewul faratu ko anfusukum wa alamu bikum yàlla na mu ma kenn wax yaay kan maa leen gën a xam maa ngeen xam ba ngeen di ndox ci seen ginnaaw baay ma di leen xam ba ngeen di deret ci seen biir ndey ma di leen xam ba ngeen di suuxu yàpp di leen xam ba roof leen yàq roof ak ruu teeru leen keroog bi ngeen bi ngeen bi ngeen juddoo eh, eh, taqal leen nag ñaar ñu dul nelaw duñu way la kiraaman ci nag fexe ba sa cër bu nekk di témoignage ci yow ëllëg man ngaa dem ci kër juufa la nga dem ci néeg bëgg faa def lu neexul yàlla rekk say nopp teg ci biti boo noppee fabaat ko dem mën nga ko mën nga rekk say bët teg ci biti dugg def li ngay def génn fi ndekay ñooñu nga duggaale ay enfant secret lañu su bët yi nga duggaale ak say nopp nag enfant secret yu rëy la ñooy nettali ji yàlla li nga ci def maa kuntum tas tasiruuna an yasada aleykum سمعكم ولا أبزاركم ولا جلودكم ولكن سننتم إن لا لا يعلم كثيرا مما يعملون وذلك ظننتم الذي سننتم بربكم على رأكم فاصدقتم لمن خاسرين طيب فإن يصبروا فنعم صلوا وإن يستعتبوا فما من المتقين تعلم يا رب الله bés bi lan la ci bés bi 3 mai dimanche quatre-vingt-douze maa ngi laaj ku fi teew ku mu doon te mu bañ a am complexe test ci bañ ma tontu ndax dimanche le 3 mai quatre-vingt-douze mës na am le dimanche 3 mai 92 mës naa am xale yi ndeke yàlla li muy bëri li muy bëri bis yëpp benn bis du boon bu woon démb ndeke dimanche suñuy maamaat bés yu ñëw di dem rek ndeke bés bu ñëw di bëri bés bi ñu dëkk bool di ñëw ndekete benn bi ñu ñëw dellu si waat yuuf bokk yi Ibou Sakho ndax trois mille nii di mu bërsatee xajar xar nga jóg dara mettiwu la mu nuyu la ndax dégg nga li mu la wax déggu la li la trois mai wax daf na la maanaam trois mai dimanche quatre-vingt-douze a ma jiwaaleeg démb du ma moom de dur ma jiwaaleeg ëllëg du ma moom de tey laa fi mos a ñëw tey fi géej te yaa ma tax a jóg du ma la nëbbal li ma tax a jóg mooy fu ma dugg tey ma dugg fa loo wax ma dégg ko loo def ma gis ko loo nar ma ko anna anna et se passe partout bureau addu Diouf sax am du wa dug ci man bëccëg du ma leen nëbbal sama yoon e gaay kan gan xamne ben ne yoon lay ñew te bu ñibbee lu mu gis wax ko te du delu ci wat matu la baye xel ko ci yalla le froid mai daal am na yéene moom ko rek ba ba ñu waaw góor waaw ñun itam am nañu jox la ko bu soobee yàlla fee mu ngi dund ku fi ñëw itam ñu ne la trois mai daal trois mai ah, trois euh, bu xalifa la wilaahi mos moom yàlla la ko jox de yàlla man de kii li tax ma wax ko li ma ko wax ak li tax ngeen daji fi ji ak li tax niñ fi nar a yàbbi ñu yàbbi ko bi tey yéem nañu ñëwul ci man soxuma dara day def bu ñëwee rek kaar dinaa ko seetlu nag ndax man kaar yàlla ma bind ma bëgg ko rafet mu sañu ma sax sañu ma sax euh, bañ ko ñaaw waaye mënuma ko bëgg bu ko ce n'est pas droit di bañ ko ñaaw mais nag waaw ma audience daal dëgg bi nee na ku rafet laa yàllaay wax de ku bëgg lu laa ku rafet laa ku bëgg lu rafet laa yàllaa ko wax inna laa jamil yuhibul jimaala gis nga ñett ñii Quran ñett ñi yàlla du leen yónni mukk bu ko def dafa mel ni ku am soxla ci sëriñ bi dafa bëgg a dafa bëgg a yo yo kaar teel ngaa yeeyeeku de sa nijaay de bu la yërëmee ba yeewi na it sa nijaay bu saaxu moom mu ngi tëral di benn tànk bi ba ca kanam tuuti bopp xam nga xam nga leen donc maa ngi laa yëgal tuuti feeg yaa ngi fi toog kenn du la bindal bàkk feeg yaa ngi fi toog nit di la bindal teew feeg yaa ngi fi toog yàlla ngay teg ba toog yërmande boo fi jigéen nag yaa xam إذا تمكن عنها هو النتيجة من قتلوا toon yàlla du yónni ñett ñii yàlla du yónni ku amuli bokk mukk gis nga nabi daan na wax ne néeg bu ci xurey seen sama mbokk nga ci fi kulli taqdiratihi nasaban شريع فئر قريش من قلاسي وكو بقلاسي إنك في دوار وهو الأجمال ويتراه في كل تقديرته نسبا تراه تراه في قريش في قريش ما كونه من خلافهم كفار بيك سارسة بيك سارسة بيانك منطق dama bëggoon tey jii su ma àggalee lii bañ a waxtaan ak yéen sariya a waxtaan ak tariqa ma waxtaan ak yéen ci aqiqa ndax aqiqa ca kaw sariya sariya nga ci tariqa tariqa ak sariya waxtaan nañ ci yéen ba tey mais tey lu waxtaan bi ni ragal boo ko xëbalee mu daw yonent bi du sotti xam nga lu tax du yónni ko amul bokk dañ koy noggatu ku ñaaw nag dafa neexul ba gëm xumal di ko gëm moo tax fi ko naan ñëpp di takk di tànn ay homme de bâche yoo xam ne yii ku ñu waxal nga déglu ma àggale tees bi dimanche 3 mai 92 du dimanche bés la 3 date la 92 at la ma ne dimanche ju dajeeg 3 ci weer wu ñuy wax mai ci 92 ndax mës naa am d'accord ngeen ne mësula am ma wëlbati laaj gi ne ndax dina amaat ñu ne du amaat ma ne ndekk li yàlla bari bis yépp bis bi musul am te li mu nar a dese yépp bis bi du ñëwaat ma wax nag ne rek mbaa yëg nga le pouvoir mais li mu la wax ci fajar dana ne tey laa fi musi ñëw bu ma juwaadee ëllëg du ma moom de bul ma juwaadee ginnaaw ëllëg du ma moom tey laa fi musa ñëw tey laa fi géej du la nëbb na li ma ci nga xam nga la ma naan tey ma dégg ko loo def ma gis ko foo dugg ma xam ko loo na rek ma yëg ko topp la nag bu fekkee bureau ba nga jëm moo ànd ak yow boo jëmee atelier ba moo ànd ak yow booy nappi mu dugg ci gaal bi sooy rëbb bi mu ànd yow ca ñaay ba ngeen di circulé ba jant bi toll fii mu toll mu tàllal la loxo sama waay maa ngi laa jiitu de dossier baa ngi maa ngi koy yóbbu xam nga fu ma ko jëmee du France du Makka du Médina xam nga fu koy teg ci sa bàmmeel xam nga ci la koy kan laa koy teg yàlla du ma ko jox abdu Assis du ma ko jox Sadio mbàkke yàlla laa koy jox dem naa nag dab ma defaraat wet wees na te doo ko mën a miim te du ma dellu si waat yàlla ni mu réer wala yow muus ba di def njaaxam gu seeni cër fekk wu foog cër yi fekk ko te cër yooyu ensan sakar lañ ñoomee ñentul li fi ne xam nga bu la wàññi ne dossier baa ngi maa ngi ko yóbbu maa ngi yóbbu tey li nga yendoo def maa ngi yóbbu tey fi nga yendoo dugg kër jàmbur yi nga dugg te seen borom newu fa maa ngi ko yóbbuwaale deru gor yi nga doon ŋaañ te jotewul ak ñoom dara maa ngi ko yóbbuwaale ci sa bàmmeel laa koy teg nekk teg ko ci loxo yàlla daf ma defaraat wees na tuddoo ko mën a niim tudd ma dellu si waat góor gu yow gën laa leen doon nekk li mu borom gént gi bu baax ne nag suñu borom ci mànduteem àgg na ci day fiir na su dund bu tuut foo mës a dugg foo mës génne loo mës def yëpp mu ngi ko filmé denc ko ci mandoo nag bu àllaaxira da ngay jaanoog fitla bi mu di ko ubbi xuñeet ñi ne loo doon def fii keroog xuñeet loo doon ut fii keroog keroog laakat lewa gu rëy lay léeg-léeg ñu ubbi foo xam ne da ngay gëm ngir yàkkamti mu passé kon ku ñu toog foo xam ne buñ ko ubbee nga yàkkamti mu nga bëgg mu yàgg ngir mu neex na yàlla baral toogaa ba du jub perte perte du noonu la wax nag ne cant war na ñu ñëpp ëpp na ñett waaye ma jukki ñett gotte alhamdu ñaata araf la liif laam adam dellu miim deel juróom kay julli yi du juróom alhamdu lu mu doon juróomi araf lillaahi tuumaa nga trois plus cinq huit la bunti ajana ñaata la kay nga gis nak secret bi ma lay bëgg a nekk na ci akika lay waxtaan di ma waxtaan ci sharia bisi mi ju andul ak laay ne bisi mi rek ci nga tek ci lay bañ ci tek rahmani nga tek ci rahmani bañ ci tek rahimi bisi mi woote ñaata leetar la ne ma set ba siin mimara liif laam laam alsaxa asamaan ñaata suuf nag fan yi ngay tourné mu tëye jeex toujours fan yi sem semaine bi semaine bi ñaata doo fexe ba yot ba dolli ci benn muy huit mënulu ko benn bés boo ci yokk ba ñëpp d'accord utal ko tur d'accord ko ba boole ko ci semaine bi mënul ko cër yi ñuy si jottale yàlla ñaata la nee ma juróom-ñaar Safa ak Marwa ñaata yoon lañ koy dox jàmbaraay loo koy sànni borom juróom-ñaar yooyu mooy bisimilah yi ba si mi mara lii laam lam ak saxet waxuma bisimi goote waxuma bisimi ibu saaxo parce que yàlla laa la tudd yàlla laawu la tudd tuddul basiru tuddul rasaax tuddul waxaab tuddul asiisu tuddul rahmaan turam piir mooy allahu ndax nit ku ne am nga ñetti tur turu melo ak turu jëf turu jëf nag du tur asmaaw sifaat ak asmaawul af'aal du tur mën naa la ko firil xam nga luy asmaawul sifaat xamul it asmaawul afxaal asmaawul sifaat mooy ndaama gi njool mi buñ ko waxee rek buñ xoolee la tuddee di nga ko ci dal di gis njool mi ndaama gi ku góoriwu ki ku xees ki kooku mooy turu melo turu jëf nag mooy maçon bi menuisier bi tailleur bi maçon booboog ministre beeg téwér booboog ndaama kooku nag mu tudd Ibrahima wala Moussa am dé piir nag mooy liif laam laam ak sa xeer ganam yooyu lay dogal gott turan nga mën nañu soxoy waaye nag ma ma teeral këfin bii ma hmm? moom de dafa bëri fitna mooy ah, fii day man xaw ma dara mënuma dara waaye maa ngi di déy de maa ngi di déy bi ndéy mi sax koy na ndax ku wax ca dafa déyetu dëgg yàlla xam naa ne de ku fi teewlu wax sa aajo dina faju incha allah loolu moom loolu moom am ci benn sikk ngir sabab bi daje bee du dara jëy borom bi sabab bi bisimilah yi ñaata araf la asaman suuf suur yi ngay wëndaalu te mu tee jeex matière bi ngay dunde matière yi ñu boole bëgg di nit juróom-ñaar ndax matière bi ngay dunde inna sabarna ma saban suma saxarna aba saqan fa ambatna fi aban barkan wa inata wa habba wa seetona wa naxlan wa raiqa wa xulban fakat set yooyu ci ngay dund ci la ñëppay dund def naa la ndox bankal ma def la def bankal suuxu yàpp bankal yàq bankal ab der bankal def kala roof ruu mbaaral naa leen juróom-ñaari mbaar yi du doon ci seen ko parce que ba ma koy mbaar fàttaliku naa ne am na ñu ko nar a ronu waxal na ko ba mu wéy naan oh, oh, oh, bi may yëkk ci ma noonu bi xaafilii na fàtte uma woon ne am nañu ko ron mbaar mu day ni mbaar mii ne ku mu tiim te amul kenn ku la ko tiimale woon ku dul yàlla ci gestu ngay dëkk moo bëri doole wax naa la ba tàyyi ne loo fi ñi di ko defaraat moom ko loo seen ñi di ko defaraat rek du yëfal wala déedéet toj nañ fi ruu yi ruut yi defaraat pom yi defaraat pare yi tabaxaat waaye loo seen ñu di ko réparé du yëfam yëfam yaa ngi yes tàkk jant baa ngi nii mel na mu meloon keroog weer baa ngi mel na mu meloon géej gaa ngi ginnax di dem di dellu si wasam tuta jëri li mustaqar la zalika taqdisu alqoos xamar qadar na manazil ata adakal wu joru xam amul benn jant buñ ne jam to bi dafa man ci il moo ko tafi rutaa subhana sil mulki daima subhana sil mulki daima مولى سبحان ذي الملك العظيم دائما مولى سبحان ذي الملك العظيم دائما مولى سبحان ذي الملك العظيم دائما سبحان سل ملك عظيم دائما بوري الله سبحان سل ملك عظيم دائما مدننا سبحان سل ملك عظيم دائما مدننا سبحان سل ملك عظيم دائما مدننا سبحان سل ملك عظيم يا مدننا سبحان سل ملك عظيم مدنين سبحان سل ملك العظيم دائما مدنين سبحان سل ملك العظيم دائما مدننا سبحان سل ملك العظيم دائما مدننا سبحان سل ملك العظيم دائما مدننا سبحان سل ملك العظيم مدنين سبحان ذي الملك العظيم دائما مدنين سبحان ذي الملك العظيم دائما مدنين سبحان ذي الملك العظيم مدنين سبحان الملك العظيم دائما مدنين والملكوت خالق الأوالي مدنين سبحانك الملك العظيم دائما الملك العظيم دائما دائما سبحانك الملك العظيم دائما الملك العظيم دائما مدنينا سبحانك الملك العظيم دائما دائما الملك العظيم دائما مدننا سبحان سر الملك العظيم دائما مدننا سبحان سر الملك العظيم دائما مدننا سبحان سر الملك العظيم دائما مدننا سبحان سر الملك العظيم دائما مدننا سبحان سر الملك العظيم دائما مدننا سبحان سر الملك العظيم دائما neena subhaana sil mulki azimi daayimi Maodo neena subhaana sil mulki azimi daayimi yow yàlla subhaana sil mulki azimi daayimi Maodo neena subhaana sil mulki azimi daayimi Maodo neena subhaana sil mulki azimi daayimi daayimi wal malakuut xaaliq al awaalim مننا سبحان ذي الملك الأمين دائما والملكوت غالبا عالما jaageen jëf jànq ji jaageen jëf gaa yu góor yi ba tax xewoon toppee ko fi jënd ko fi jaar ila waxtu waxti acca dindi ko ñori ko mun a fànn kay daal ne ko moom tubaarkalla ah. <coughs> jant bi. quatre-vingt-dix-neuf mille ah ngeen dem tuuti jërëjëf yàlla Atau màggal waa waaw toog leen tuuti jant bi ku ko moomoon di ko yëkkati lu ko dul yàlla bu ay mu ngi daw soixante-dix-sept mille sept cent soixante-dix-sept kilomètres par seconde du tiim kenn ba tànkal la avion bu doon naaw ba toll fii damay noppi fekk jàllul bu ma waxee du ngeen ci dégg xam nga lu tax ki ka defar mënul jëmta bee laa jëmta bee laa tiim du yàq sa ak sa kër ak ju réy jooju xam nga ruuy ci karos lañ ko teg jant bi waaw karos yi karos bi euh, rayon yi rayon yi juróom benn téeméeri junney rayon la ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn waaw ah, ah, ah, dama mel ne dama seenoon Cheikh Tidiane léegi waaw waa mu nga ne toog ci ci waa daara ji la ma yëgal la nag Cheikh Tidiane ci waa daara ji la fanweeri at ak juróom yi ñuy firi alxuraan ji yëpp mosul a manqué waaw bi hmm? Hmm. bari na bari na maa ngi loo fi seen ñu di ko defaraat du yëfi yàlla dafa am matière bu mu jaayul ab lewu ko moom rek koy employé mooy lan mooy ñàkk yàqu moom lu muy def da ciy defaale bañ a yàqu bañ a yàqu nag matière la boo xam ne amul ci benn magasin buy jaay loo fi daloo bu bët si mu commencé yàqu sa taax mi sax keroog bañ koy indi girij keroog keroog la ci nit taqal euh, ci loxoom lu mu lekkoon jotul a set mu commencé di wàññeeku ba muy daanu li tax nag moom mos wéeru ci moom ku wéeru ci moom nee na in yansurkumullahu lu ci tegu turam in yansurkumu lu ci tegu in yansurkumu lu ci tegu foo maas al sa xeer gi danga ko maas lon ko laahu nga wax Abdou Gueye agsi leen waa bër gi هاي يلا بجنب بجرنا نسلل أسناما محل كساب برحمة ودنيس واللوساني في دين ودين ما ينبني لما في جوفي إما جمال جنان يضارب كل في دين ودين مودني مجاوب سائل الأسلام مع مبنين يمينكم ودمتم في ركن مبنينكم مفتخر بمفتخر ينال موطن يداهب ضيفه باقي كل ذي مفتخرون بمفتخرين ينادى أنا مفتخرون بمفتخرين مفتخرون مفتخرون بمفتخرين مفتخرون مفتخرون بمفتخرين مفتخرون مفتخرون بمفتخرين ينادى أنا مفتخرون بمفتخرين مفتخرون مفتخرون بمفتخرون على جنانينا فم مفتقرنا بمفكار يا مجمعنا فم مفتقرنا بمفكار يا مجمعنا فم مفتقرنا بمفكار يا مجمعنا فافتخرنا بمفتخرنا تقرنا فافتخرنا بمفتخرنا ينادي مولانا فافتخرنا بمفتخرنا ينادي مولانا يداهف ضيف وفي كل دين مولانا وهام ثم سعر ثم يوم ينادي وهام ثم سعر ثم يوم ودن وهام ثم شعر ثم يوم ودن وهام ثم شعر ثم يوم ودن أتى فيه ولا قرن القرون مودان سرور في سرور في سرور مودان وهيد دون آيات القيام مودان ربيع وغنى إلى شعير إننا ربيع وغنى إلى شعير إننا بها من الفعل يوم يوم البعد جناني جنانة بيعمل فيلي يما البلد جناني جنانة بيعمل فيلي يما البلد جناني ومولدها مقل به سرفون وحيد قبلان مولد مقل به سرفون وحيد قبلان مولد مقل به سرفون وحيد القني ومولده به سرفون وحيد عايلا ففي تنزيمه إن جاءوا سجوني عايلا على سرر الملوك الأحاد فولا عايلا ونجم الكوري في عماد المعين عايلا وناسهتي طيور كسار أخوز عايلا لها فنان يكون بدار ختيل باي باي لسان القدر خنا تاجها موض من به غتوسد أليمتنا بدون غني به تاب الإله على حبينا به تاب الإله على حبينا به صنون لا يلبان نون دون به بسرنون وإيا الإله لنا به غالل أليم يار كوني يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة مولى المنان مولى الإلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنام مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي ربنا إلهي توبة قبل المنون am na sunu mbokk yi fi ñëw léegi waaw. sa xarit. suma xarit. waaw. Diop moo la wa sallam. Eh, dafa naa ne yàgg na koo def ci nabi. dafa agsi buraam mi xamul too mu ne ma góor ga ni mu la bëgg bi muy dugg ci kii. fekk léeg xale yi ne ma diw ni mu la bëgg ma ne bëgguñu ma nabi la ñu bëgg. su ma doon bàyyi nabi ñu dama bàyyi faale ma sax. waaw kañ. waaw looloo am de. wallaahi ndeysaan. bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam. bi jaay rasulillahi salaam. bëgg na moom nag maa ngi fàttaliku sa mbokk maa ñuy wax xale ba Njaay keroog jàngam yëpp fukki junne la fa joxe da nga ko fàtte àll moo ko fa jëkk joxe. déedéet du njaayroos ba muy ñaanal yaayam ku yem Medinatul Munawwara mbaa màkk dogale na la teral na nit ki ñetti chef d'état yi ma wax ne dogale nañu Abraha ba muy toj ci kaaba gi waaye daf leen duma yeew leen dal na ko yal yàlla yokk sa wërsëg yokk wërsëg gi jullit yëpp sunu mbokk yi yéeg si léegi nag ñoo tudde seen bopp sant yàlla ñoo yor yonent bi at yu toftale te dogul doomu aadama di ci naan naanu saayir ak bu baatin sunu jarbaat bu baax bii moo nuy ubbil bër bu set alquran joo xam ne day des ci yi tàmpe ba mu dellu si waat daaru ngi mooy seen président yokkatul ci dara yàlla kii nag papaam duma ko fàttu mukk mukk ndax benn lañu woon sunu góor gu baax gañ daan wax juuf rafet te bëggoon torop yonent bi mooy trésorier yi gars am na ñu des nag waaye ay jàmbaare ngi yow yow sànq ah, ah, Babacar Khalifa téye naa ci loxoom sànq na ko yow day xaaw ma kat waaye ñemeñ naa laa seede ci kanam yàlla ne ko fulaloon yàlla nga waaye ñii yëpp xam naa leen ni seede loolu ndax lëfkat su la jaralul alal ak rongañ ñoragu la nit li mu gën a nay ci yëfam mooy rongañ ak alal ni borom am see waxoon rasulullahi ba muy tàggoog moom kero waaye kaafatuwaa fakàlla yàlla leen yàlla yokk jëf nag boo xamee ne du teer mukk borom rus mbaa mu réccu ñaari raa yooyu lu góor duggatu du teeri foofa bu yeboo ñemeñ aw moom kaar dafa xër ku baax la waaye gàmmul naa juróomi at fii ci jàkkaam Sidi Abdul Aziz si boole na ak moom fukki yoon ak ku sooy la ci lislaam ku bëgg Moustapha la aal la waaye faatixi li ma uliqa wal qaatimi li ma sabaqa démb maa ngi ci doon waxtaan ak gars yi may leen li gën a gàtt Cheikh Ahmed Tidiane rasulullahi maamam mooy faatix li maa ugliq du noonu ba noppi de xaatim li ma sabaq mooy aynu rahmati rabbaniya koko yaqutatil mutahaqiqatil aitati bi markazi lhurumi walmaani jawharatul kamal ku ko xool xam ne du waxi na nit cheikh di taxañ di boole di taxañ di boole ba muy ñeent ñeenti allahuma ak ñeenti nuur ak ñeenti aynu mu teeral ko nag ne ko defal ma ko salaatan to arribna biha iyaahu waxu ko nag salaatan tun jinaa bi ay jamee wàllu ba afat ñi fi jëkkoon te amuñu nuyoon ubbil yàlla ubbil yow rasulullahi ñi fi mujj ñi te mu ñëw tëj yàlla leen fatiha li maa uxliqa wala xaatimi li maa sabaqa ku ubbi te tëjuloo di nga yàqule ku ñëw te moom laa ubbi doo dugg yaa ubbi ñu dugg bi ñu génnee yaa tëj xaatimi li maa sabaqa ku farak moom doo réccu tey ëllëg dégg naa ñii di ko wax waaye mahabbatu rasulillahi ak mahabbatullahi jaam daf ko amul dégg rek نجسنا يالنا يعبونهم الكبير جيتو دروخو يعبونه يعبونه ويعبونهم منو لنك ديريت نبلا من بقى يالا يالا بقى سولا يالا بقى لدوك بقى موك موتاك موم لجيت المالين بقى ندور ما من بقى دابا يعبونهم ويعبونه أسئلة المؤمنين عيشة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يقامون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء yéen a ma fekk mën a gaa yi te duma waxtaan ci sariya duma wax ci tariqa aqiqa laay wax ndax aqiqa mu ngi ca kor tariqa tariqa ca kor sariya ñoo toppante nag Ki pirim piir mooy nga jublu ko ki pirim piir mooy nga dëgmal ko ki pirim piir mooy ngeen di fa dafa sore atu an taxsiluuhu wa taqatu an tu'innu wa aqiqatu an tujalisuuhu ñetti cant yi ku yàlla jox xiifal googu mën la ko sant te su ma juumulee defe naa ne ku ne ci yéen bokkal na ko ko ak ñi mel ni yéen ma wax ko amatu ko nangu na mooy sa borom ah waaw ak am point nangu na mooy sa borom ba nga si mu dimbale la ba nga bokk ci ñi nangu ne mooy seen borom nga xam ne laa sirika def wala nazira wala nazira premier xéwal boobu kenn mënu ko sant ma dem ci deuxième bi nga nangu ne mooy yónni Moustapha nga nangu ne kii ndawama yuriduuna an yatfahu ak yuriduuna li yatfahu am na an an li bokkuñu lu ñuy dox kenn ca baraa kenn ci suuf de saf kii xam na alquran di sumpuy ñetteel bi mooy nga def l'islam muy sa diina xam nga lu ci yàlla wax man radiya billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami diina daxala jama ku nangu ne maa la moom dëggal na maa yónni kii fab lislaam muy sa ngànnaay nga tàbbi àjjana képp koo xam ne samay balaa antonoo koo muñ samay xiiwal doo ko sant samay dogal doo ko nangu génnal suma suuf si te suuf seneen sudul si ak yeneen asamaan ak beneen borom bu dul ku ku d'accord ci dogal yàlla sant xiiwalam jéggalu tooñam dañuy wax ne man man man man man zakara bi ma utiya wa sabara bi ma tuliya wa zalama fa qadara wa zulima fa staghfara ulaika lahum al-amn wa hum أما إذا ما طلعوا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أعانني بجتكو كلا كلا جوجوني فرق فأما إنسان إذا ما طلعوا ربه وأكرمه فيقول بأكرمني كلا وما إذا ما لو فقدر رزقه فيقول بأنني كلا ñoo bokk kala tara nga nekkul ci wërsëg torox te nekkul ci néew doole alxuraan ay wax li ma daan dénku gaa di ko dénk sama bopp ma wax ko fi tey borom wërsëg wuraa war naa fas jëm jublu boromam xam nga lu tax bàkkaar daf ko yomb borom bu bari bàkkaar yomb na ko lool bëgg bunt bu mu fekk ñu ubbi ko lu mu santaane ñu def ko daa gis xale yi ndaw yi defa ci ëtt bi am xale lu góor ñëw bu ñëw di seet ab jànq ci kër gi ko xale yi ana waa kër gi benn xale bu soog ne ko tëdd nañu yaayam dégg ki doon nuyoo fekk muy boromi million da koy dal di wax yaa sob ku la na tëdd nañ ah parce que xam ne ki nuyoo poche bi diis na te loxo bi taal taali na tuub ku la na tëdd nañu borom wërsëg sama doom ju baax ji borom bayti yu neex yi dinaa la tontu borom wërsëg na moytu boppam xam nga lu tax بكر دفكو يوم مدو كينيو دولي نمويتو بوبم خمغ لو تخ تياب دفكو جافن بكر يبري باخو تياب جنيو باخو دينا واخا آه، آه، ikam lay wax akhi khalay wax borom aleel ji bari na moytu boppam bàkkaar yomb na ko ku néew doole na góor góorlu tuyaaba jafeñ na ko moo ku reggul reer di nga saraxe waaye këréer ba dañ ci ndékki ak ndékki ginnaaw ëllëg kañ chef ah, ah, ah, jot naa yóbbant bi yal na la yàlla wutal lu gën mooy chef de quartier bi def nga lu war nag suma turandoolu Euh, euh, euh, sa turandoo xeex nañ ci lislaam ba tey i tabiya millati ibrahima anifa la ñuy wax ne bi li muy doon doon sang dañ ko ne góor gi waaye lii kat ku mu xew sum pénc nga tànqam lu ko ba jant soo waaw ah, koo tuul lay boo demee àlaxira waa ji ñu yaakaar mu wallu bu la tànqam lu dara du ko jar ndokk bi nga fi jëkkee mujj fi boo noppi ci nag xaalis bu bari la fi yoon yàlla la yàlla boot la li la boot loo bi jaay rasul la yàlla boo boot kenn ku am ndegug biir boo ko borom ndegug biir la naqaree boot ci duuxlu rek ngay dëkk alaaji Omar Gueye ah ñëw na parce que alaaji Gueye ah waaw koy mu moom ñëwoon na dem ci affaire prix bi ne kon ndeysaan gaynde la kii kii ci ci ci këfin yee de ci ba eh, eh, na mu tuddati eh, nga bu xaamale de seen ilimaan kii ba am ñëwoon na démb piri ma ndeysaan du manqué aywa <clears throat> borom wërsëg wu yaa ku ñu jox wërsëg nga sant ak kuñ ko xañ nga muñ yéen a bokk benn martaba ci yow dégg nga boobu ba ku ñu jox wërsëg nga bew ak ku ñu wërsëg nga xaalit nga saalit yéen bokk place ci safara yàlla nañu ci yàlla musal alxuraan a weddi ñaar yëpp nee na teraanga nekkul ci wërsëg kàllaa teraanga nekkul ci xëtu ña proxte nekkul ci xëtu ko sa kàlla kàllaa googu tanaasaayil jumla ak jumla la joxo ñëpp yàlla nag kenn du ko topp réer mu ne fii la nga topp ko réer du am mu jox la ba nga yor mu tàllal la loxo nga am doyloo delloo ko koy du la réer ku topp joxo ñoom doo réer ku ko jox sa yëf du la réer ñu ngi nekkoon di waxtaani doomu aadama ak borom am na ku ñu wax maas nit ñu jëmadin ku bari lu mu nettali lu ne wax la ndax daf daan ànd moom ànd naa ne bi sax ba na bi togg ko ci gileem togg ko mu toog ci ginnaaw muy waxtaan yonent bi ne ko maas mu ne ko rasuul mu ne ko xam nga waru gor yàlla ci jaamam yi mu ne ko déedéet mu ne ko xamul it war a gori jaam yi ci yàlla mu ne ko déedéet mu ne ko tey ma ko xam nga luy waru gori jaam ci boromu mooy nangu ne moo ko moom te bokk du ko boole kenn su loolu amee nag mu des waru gori yàlla ci jaam bi luy waru gori yàlla ci jaam bi mooy lu mu ko def ci lu ñaaw mu baal ko ko te bu dee mu teral ko maas ne ko ndax ma gaa yi loolu nëbbi ne ko ëpp naa def day jur tayal soo ko nettalee day jur tayal noppit nga gis nag man raddaa billahi rabban wa bi nabiyi wa bi muhammadin nabiyin wala rasulin wala kilayhima sax nabiyin rasulin wa bil islami diina daxala janna ku d'accord na yàlla mu moom moom kenn dong dong mooy buur Moustapha mu tëdd mi moo ko yónni ndawam la piir l'islam bi ci lay langaamu yàlla ne am nga laissez-passer tabbi àjjana te l'islam am na doole euh, président l'islam am na doole ku yëg ni yaa ngi ci l'islam war seet bu baax ba xam la la cay saxal ak la la cay génne la la génne nga di ko daw foo toll la la cay saxal nga di ko sàmm foo toll l'islam kaar kaar am na bénéfice bi gën a tuuti laa lay wax yem nga ne daam ku julli tisbaar tey ak fu ma ko jullee am nga ca yoon waaw fu jëlaal suuf tey ci tisbaar yàlla nangu ko kuy julli am nga ca lu oome noonu fu mu am ku wax laa ilaha illallah te yàlla nangu ko am nga ca ku oor weeru koor te yàlla nangu ko am nga ca jullit almuuminu kulluhu xayrun wal kaafiru kulluhu sharrun jullit léppam bu ñàkkee mu ngi ci yiw bu amee mu ngi bu jàqee mu ngi ci bu bëggee mu ngi ci bu feebaree mu ngi ci yiw bu wéree mu ngi ci yiw bu dee mu ngi ci yiw buñ ko suulee mu ngi yiw bu alaxira mu tàbbi àjjana ni ci wudul dog ba faaw yëppam yiw eh, juuf xam nga li tax islam dollete sakkan juuf eh, naar jóg mooy loo def lu mu doon tëdd jullit yàlla mu ngi ko tudde sarax sa dépense kër tey sarax la yàlla dala koy far sarax garambo bi nga xotti piis bi ci boppam sarax la xaalis ba sarax la ko yàlla tudde ñëw bi nga fay ñëw bi sarax la solo yu rafet yi nga jënd pour moytu ci ngelaw sarax la ko yàlla def daal yi lay moytu ni ko loo sobe ak win sarax la la ko yàlla bindal jullit daal lenn rek lay dépensé lu yàlla téye loxoom ne du ko fay waaye lu dul looloo defal sa bopp yàlla la la koy fay fayu jaam da nga defee ne yëfari du ñu xotti mbubb du ñu jënd daal bu ko yor seer sa bopp sax waaye dara duñ ci am dara danga nga defee duñu duñ seen mbokk mu feebar duñu lebal seen mbokk mu njëkk ni duñu dimbale ku mënul yéefar du def loolu mais du ci jële dara wëlbatiku jaar jot du ci du ci juble dara du ci du jëlee dara lu ci jullit def nag lenn lu ma la ci doon nettali bër sët fii ma wax la ci benn tuuti dellu si waat mbooleem jàmm yàlla yi amu ci benn jàmm yàlla bu yàlla d'accord ndax xamee nga taatu xamee nga taatu ak ibadatu kon doo xamee sawaabu ak jasiilu doo xamee jasaawu ak sawaabu dañuy jege ñi mutaraadifa mais bokkuñu gisal sooy sikkar ci sa xel ci sa xol moo ëpp doole sikkar ci sa làmmiñ bi dee sikkar wa sikru bil jinaani afdalu min a sikri bil lisaani xoolal nag sa làmmiñ lay bu ko wax mais booy julli jàng ci sa xel julli gi du baax maa ngi wax wax maa ngi waxtaan xam-xam yi ak xeex dafa wa sikru bil lisaani wa sikru bil jinaani afdalu ak ibaadatu bokk bu ñu doon wasifal tey ku dee bu ñu amee juróom-ñaari priorité waa tuuti arrêté parce que du jaamu yàlla ñaan la mais bu dee jaamu yàlla foog duus yi ñëw foog nga indi duus su duus yi ñëwul du baax sooy jàng-jàng xel ci jaamu yàlla yàlla du ko nangu soo koy sikkar ci xel moo ko gënoon sikkar ko ci làmmiñ dañu ëppante doole wa dikru bil jinaani afdal wa aqwa min sikkari bi lisaan am na xama ban ban jotaay bi moo toogoon di wax gaa yi ne leen fàttee bu sell bi ñuy dëkkee wax fàttee bu sell fàttee bu sell bari na ñu koy wax te ko fatiha bu sell mooy fatiha joo dale ca bopp ba ba war a daal lii na ta noppi woo nga téye sa noppi bépp fatiha boo jàng di noppi di ca boole fatiha ba sellu ndax noppi ngi jóge ci mbaq te mbàq fi la sobe ne kon sa làmmiñ ñi ngay wax lu sell waaye sa bakkan ngi sotti lu salte foog nga arrêté nag wax pour kii bi fatiha bobu mu ngi wéccu juróom-ñaar fukki junni fatiha di nga téye sa nokki ba ne wala daal lii nag mu ngi wéccu juróom-ñaar fukki junni fatiha yi ngay jàng di nokki ndax mélancement bi nga ci def moo ko waral ñu wax nag ne man sax ma ko wax dama wax lan nga dama ne yafu dama ne yefere yafu su dañ ko sopp yefu yafu su dañ ko sopp julit du jambar dañ ko farle alquran la la bëgg wax de am na ki ko am na ñu koy wax sax la si nekk fëru am na ñu ko wax Muhammad saar la woon ñetti tur suratu Muhammadu Rasulillah dañ ko wax di wax suratu Qitaal di ko wax la si nekk fëru déglu ma bu baax maa ngi lay wax aay joo xam ne naxuma la parce que indi lu ma la aaya mansuux alxuraan du li fi nekk yëpp dañ koy jëfandikoo ti bari na lu ñu annulé bu yàgg léeg-léeg sëriñ ne la alxuraan ne la nangam te loola waxatuñ ko دفع ام ناسخ ام منسوخ ام غير ناسخ ام غير منسوخ ام ناسخ تلاوتي دون قراءة ام ناسخ تلاوتي والقراءة والعبادة نخميكو من ما نغير بغا وخنا اي بو خامني داي دوند ني جيم وي باتي سي جي دو اي بو خامني منسوخ لا منسوخ تلاوتي دفع ام ak man sokol ukuma sa way xam na ci dara Euh, téyel ma sama toll ma passé lu tudd man soox mooy eh, eh, mooy luñ santaane woon te mujj ko annulé yàlla na maa nan sax mi ne éyeetin aw non see ha naatin bi xayrin min ha mooy bu toll ni moom liggéey te ëpp yool aw bi mis di ha wala bu ko gën a néew liggéey te ëpp ko yool lu ma ne buñ ko defati rek lu mu doon dinaa ko remplacer li ko gën a yomb te toll ni moom tey wala ma remplacé ko lu ko ëpp payta du sonni ni moom maa nan sax min ayatin aw nunsiha bi xëy mi kon kon kon man bi am solo Abdou Gueye yaa ngi am na saa bu ñu wax yaay waa mu sëmil secret bu réy ngi ci lu sa soxla réy réy tiis tiis nga sangu sangum sunna yooru yooru alxames nga dugg fu la kenn gisul jàng ko fanweeru yoon njàqare jëy du indoog yow aajo du fanaan ak yow léegi amu dëgg la ma ngi bëgg ñëw de maa ngi leen di indil ay atte yu kafin su ma dellu si Abdou Gueye ci naasix ak mansuux indil la lu tax nga xam ne yéefar yaafusul dañ ko sob jullit du jàmbaar dañ ko farle suñ duwaay dencal nag li ci des li nga joxe bari na lool waaw moom kañ dina gis lëf de fi jógee nga gis lëf de wax loolu de xam naa ci ndaara day laa de deuxième classe sax àgguma ci waaye daal mu yu ma de eh ku la jox ca am nga wax ko ca nga xam kenn du fi ne nasax ba doo am doo xam xanaa xanaa am yaay waamu sa néegu du indoog aajo du faraan ak njàqare ndax trente aaya la trente koy jàng waaye nag da ngay sangu sangum sunna waxuñu sangum farata man maa ngi fàttali ko óor na xale yi dàq naa sama ñetti mbindaan te looloo tax ndax day def bu ma tëjee ne bu ma kenn fëgg te ubbiwuma parce que boo gisee sëriñ si bu ñu duggee xalwa bëgguñu ku leen ubbi te du ñoo ubbi da ngay dugg xalwa ba a jàppala nga am téeméeri gémmiñ ak junney làmmiñ am bët ci ndom ak ci digg ak ak bu bool ni lumière kon ku la ku la bett ubbi ñu bàyyi la ba nga dellu si waat eh, eh, imam bu sey bu da ngay dem da nekk ci tur yàlla ba ba ba ba mel ni ñenn xit doonaat mën nuyu ba nga doon si ndigal bàyyi Abdoulaye Sarr wax na ko taalibeem ñu ko xam wane ne ne ne ne bëkk nañ bu ba kenn ubbi ah bu ba kenn fëkk ah dugg ci xalwa bi góor gaa ngi bàyyi doom ji door a fer xam nga doom ji day day bëgg a xale bi jooy rek papa papa bëkk néeg bi na ko doo fi jaar da yaay ji mer xam nga nag bëkk néeg day ragal jabari patron yaay ji mer na xanaa lii dootul jàmm rek ki bëgg a gis bàyyam nga ne danga koy fer lii lan la ba xale ba ne kurgat buntu ba fekku fa dara fekk baay baa ngi ci aal ba nekkaat ma niyu ci baayam mu def nii def nii gisul dara mu campe ci baaraam bi génn mais ba yàlla dabaatalee baay bi xapp ci ko bu réy la def ci jëbi baay bi àndale ne boo xam naa ba tàyyi bu ma duggatee fii bu kenn fëggate du mag ubbi dangaa di liggéey di liggéey liggéey boo xam ne dafa metti ba mu des tuuti nit ñëw ubbi la nga bëgg reprendre dafa metti kon am na ñetti ñooñu euh, euh, ñooñuy liggéey ak ñooñuy dimbalante ak soxna euh, na ngeen ko tudde waaw du du nag ku tubu ñaaw la ku tal yow judd yàlla sot ko ba xatal wërsëgam yaa sa bos mu ñëw jaay la wërsëgam kooku ci yàlla rek ci gën am déet ma bari na mbindaan moo xam ne ka bind ëpp ko juddu daf ko ëpp wërsëg yàllaa ko sopp nag néewal wërsëgam jox ki wërsëg su ñëwee ci yow nag santal yàlla ci loolu noo koy sant booy añ bokkaleen bu ko jox nga sit bul muccaat ba mu des nga jox ko bul talal sa loxo ne ko fuddal ma say tànk bu sa doom jooy nga naan ko naxi ko fële loolu ëpp na nag aleykum bi salaatu wa malakat aymaanukum rasulullah loolu la mujjee dénkaane dafa mujjee dénkaane yërëm ñi nga ilif te toppatoo junni juróom gis nga léeg-léeg ñu euh, mbindaan yi léeg-léeg borom léeg ji jéeg ji euh, indil seen jëkkër tuuma te fekk ñoom ñoo ko def dañuy jàpp mbindaan di ko seere di ko seere di ko seere ba yàlla sa na mu yàlla sote yàlla day fexee sa patron sa borom kër nopp ko takk kana ma xam nag bi yoon koy koy koy commandé ti nga naan xamoon naa ko xamula dara du noonu ndeysaan euh, daam daam jonn defe naa xam nga kuñ daan wax waaw xarit yi dafa at dafa sàmm na woon seetaan na sax da seen duggante ñeenti at yàlla dogal na maa leen defaree keroog ba may jullee Maxtaar Jóob rek Yaxya moom nag ku réew la woon ki mooy jëkk a tudd njañ njañ ne ne <laughs> soxnaam dafa am mbindaan ndeke mbindaan mi sëtëb Lat Joor la ñoom xamuñ ci dara mbaaxaana ko jur mbaaxaana jur ndey xale bi ñoom ñu bind ko xamuñ ci dara ñaar di ko bindaan ba bés ñu tàggee góor gi mbaaxaan ngañ ne ma jóge dëkk bi fekk xale bi di jooy jooy yu métti ma ne ko yow loo jooy mu ne sama maama dee ma ne ko kuy sa maam mu ne la joo mbaaxaan moo jur sama ndey dañ ne ma ne ko mbaaxaan mbaaxaan a jur sa pay mu ne waaw ne ma dara sama nopp daal di ko woy ne sama jabar amul waaw <laughs> ah, dëkk bi sama sax Kewan gure itu. jàppal xitaal waaye ñëwal ci musamin Ya ngeen bëgg yëg yaa musamin mooy troisième saar moo topp ci iqra moo topp ci mudassir iqra jëkk ñëw mudassir topp ci musamin topp ci mooy troisième saar mais moom secret bi ci biiram xale su ko mën am na naasix bu tilaawati doonul ukkumi am na naasumul ukkumi doonul tilaawa am na naasumul ukkumi wa tilaawa ci laa jaar ñëw wax fii gotte mi wayarlu tuuti xam nga luy sëmm xam nga luy dësmu lu ci ne sàngu lay firi yaay waa mu samiiru ak yaay waa mu desiiru samiiru mooy sang sàng bu borom sàngaale boppam desiiru mooy sàng bu borom yemale ci ween desiiru nag ñaar ak kuy def sas da koy def zëm lu ñaar ak kuy safaa ba tëdd koy def Abdou koy déglu woo ma de yonent yàlla Muhammad indu xari ira ba ngon mu ñew ak ñak julli def la mu mën ci na day noppal ba mu ne ci law ba ñoo la jibril na deret ne ko teel na xum yàlla musa mbin yow muy muuru xaat sàngu ba muur sa bopp eh, teel na xum تخول جلي تخول جلي الليلة جي أمن اللي فقلام أمدير أمن اللي فقلام استقرار ربكم قالوا استقرار رب كم لنا باي لما يوفر بس كي يعني يدبنيو خم الليلة تدتلنا جلي الفجر الإسلام بما يدور نيو soo safaak wetar ba reer da ngay taxawal nag di julli ba ñu salaat looloo xewoon xam nga naasix laa lay wax lu ñu remplacé annulé ko suñ ko annulé wul woon ba tey mu ngi dund mais dañ ko annulé xummi teer na yaay waa mu desiru yow jàmbaar ji yaay waa mu desiru yow góor gu rëy gi yaay waa desiru yow borom taar bu rëy bii xummi teel na jógal jógal la guddi gi yëpp ne xone ñi na tekk rek ba sar wi jeex nabi daf ko génn guddi ci ëllëg sa mu dox ba fajar di bëgg a xaar mu daanu xam jibril ñëw ne ko ilaa xalilan bo rocci nañu leyla xummi leyla jullil guddi gi too ba mu xamee ñu ne ko jullil guddi gi ilaa xalila douze heures de temps la guddi gi fexeel ba julli huit yi reposé quatre yi ne bi julli huit ci suba sa julli huit ci gannaaw suba sa ci gannaawaatu ëllëg sa mu loof tànk yi néew yi ñu ne ko aw nu xusmi nu xalila wàññi ci tuuti wenn saar bi da de gis nga naa si ak man soppa ngi ñëw kon na nga nelaw huit yi te quatre yi nga julli ko wàññi te nis fa wow aw xusmi nu xalila waaye nag bu fekkee guddi gi yëpp nga taxaw ولا جن ولا جن تقول ولا ربع بين تقول ولا سدس بين تقول نجي من أمرك ورطة القرآن ترتيلا جانجي نمون ندل بسك وقت فلك يا الميح أسهبي بك جيخ مجلال كنا ما الناس خدمت أو شد علي ورطة القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن الناس يتليلئي يأسدوا عن وقوى مقيلا إن لك في النير سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ليلي تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتغس وكلا فاصبر على ما يقولون واهجر هجرا جميلا ودرني ومكدبين أولي النعمة وما إلهم قليلا إن لدينا أنكالا وتامن وتاما سحقسة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كسبا ميلا إنا أرسلنا إليكم رسولا سعيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل ويدان شيبا سماء منفطر بك عباد مفعولا إن هذه تذكرة فمن استغاث إلى ربي سبيلا ده اللي na inna rabbaka mu yëg na ne annaka yow taqumu yaa ngi naa fi lu gën a tuuti xaw ma def ko yër xaw ma ko yëmb na ko inna rabbaka sa borom bi mu xam na ne annaka yow taqumu li ngay naa fi moo gën a tuuti min suli si lay li addunaa moo gën a tuuti ministre fi léegi te tuula la sant du yow rek nag oo taayifatun sa gaay yu bëree bëri noonu la ñu def ma dem te nag wallaahu yàlla yu xadir dafa dogaloon léeg-léeg nga taxaw guddi gi wa naari ak bëccëg bi léegi nag alima xam na ne allan tax sa u du ngeen ko man fa taaba mu wàññi aleykum ci yéen xam nga lu tax xam naa ne du ngeen ko mën mooy wa aaxaroona ñenn ci gaa yi yu xaatiroon dañuy indo jaar ba ngoon ku indo jaar ba ngoon du fa yi julli wa aaxaroona ñenn itam yëttaquuna dañuy jàppante di baana baala gàddu piis bi dem ci dëkk bi dem ci dëkk bi bu sa soyee eh, borom du mën a kon xam ngeen lu xew fàqaru ma te seen أنت لطيف الأليم أنت جواد الكريم فنن بنيل المرام يا أرهب الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرهب الراحمين يا أرحم turan ab julit du jàmbaar kii dañ ko farle kii ñu dimbale ko dooma laaj saar wu yi wax saar wii déglu ma tuuti rek ñaari ay yi jëkk ci saar bi lazina kafaru neel an wa saddu an sabilillahi neel an addala ahmalo jeex na ñi weddi Muhammad weddi alquran nee leen nañ tekki seen i ngembel lu ñu def neenal la ko lu ñu def rek neenal naa ko doxu bopp saraxe fanaanee julli laa ilaaha illallaah saraxe yëpp neen na neen na addala amaaluhum seen seen tout annulé naa ko kii sotuñu ko xam nga xaw naa dee mais addala amaaluhum ma ñëw ci ñi waaye wala si naa amanu وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق ñooñu kafara anum siyaati wa aslama lahum ñi gëm na bi nag te gëm alquran yëg naa ne sax ñu ngi def ak caañ-caay waaye baal naa leen c'était bi différence te ñaari ay yu susante àpp la waa waa jële waa jële ndeysaan xaw naa dee na dañ ko sot واجي ليسان اب ياف سخ واي دنج كو ما ما فيري اي بي خالي وي ناي فيري يوم يحمل مش خاله سرت سوكو فيري تي حقيقه لا فيري كو ولا تاريخه تي لو با بو الاخره ما فير كو غاي نيكو نك بو الاخره في نيب ناخ لو نيت بون بون داف لو تولني déet kon kon ku def lu toll ni liiram sànqalañ ci lu baax dinaa la ko woon fay la ko ku ko def ci lu bon dinaa la ko woon fay la ko ndekete yoo yàlla ñëpp lay duma àllaaxira ndekete yoo ñëpp lay tey ndax loolu na sax na sax mos a def lu toll noonu loo jub jub mos a tëj lu toll. ma ne nag sirikat ba dafa déggul dafa amul aqiqa xam nga luy pire pire mooy waman yëmal képp koo xam ne def na. misqaala sarata nu toll noog lii rëb sànqalañ te di jullit sa ran ci bon yorowoo dinaa ko ko fay ci àddina ba balaa dee set weccu duma ko topp dara wa man yëmal ku def na misqaala sarata nu tolloog saratan xayram ci lu baax te di yéefar yorowoo dinaa ko fay ci àddina ba duma topp dara lool a wa man yéemal ko def na nag misxaara du to saratin xayran tuddib jullit yoroo ma denc ko ko ba alaxira ma fay ko ko wa man yéemal ko def na misxaara saratin tuddib ki yéefar ci càncaay yoroo ma denc ko ba alaxira ma fay wax bi wax bi wax bi la ji waaye dañ ko parle kii dañ ko dañ ko so noonu la noonu la waaye bu fekkee ku def lu baax lu toll ni sànq la ñu duma la kon kenn kenn du sori euh, gorta euh, tooral sànq maa ngi waxtaan ak benn waay ma ne ko maanaam dama ne kañaan gàtt xel a koy wax am na ma doon waxal xam nga kan waaye doom yàlla na nga passé sa martabay maam ya si daañu maarif sa maam dégg naa ñu ne ne na ki ba mu dee néeg sëriñ si la ko nit ñi takk takkal sëriñ si la ñu takkal néegam kañaan Maodo nga xam naa am na de waaye daal bañ ko fana bañ ko fanaanee ñàkkaat a xel fa biddanti ba ñu xàmmee leen waaye xale bu toll nii kaar kii bootu ci ginnaawam doon na ci baayam bay joxanteeg moom teraangay waxtaanu diine te yëgu ko mu dégg ko mënu la am ngànt ne du ñëw ñëw jëkk fi mujj fi dama ko fekkee moom ma yóbbu ba ca kaw ne ma toogal fii ma toog fii bi mu ñëwee yit ne ko du def dara maa ngi wax kii ne ko leen tam si saab sama rakk ji waxtu kat kër gi dërëm a ngi ci muy julli waaye dafa joxe ngàtt timis ji dafa joxe ngànt moo tax kii julli toog ak nun nag leeral al kanamam lool ëpp mbégte borom xew yi ci xew yi te li muy doon doon yàlla nit ki yaakaare baayam ak maamam su ko woon woon kon du ci sawar ay tànkam téeku waaye mu bëgg loo ko ko ñemeñ loo ko ko yal ne yàlla fay doom bi ormati rasulillahi ah, wax naa naa moom foo fekk danaa ko sunu jaxasoo yàggul bariwul waaye am naa ci yow yaakaar ah, alaaji abib mii di sama ñi doolee tax sama xel daal ci moom ci nga moom laa jëkk gis ci góor suma doom ji ma ne dafa feebar óor na ñii sama soxna te ca kër gi ñëppam fa dama xaar ñi bégguñu ñu ngi ci dëkk bi ñi bégguñu duñu dem te demuma te xalaatoon nañ ne mënuñoo jullee àlla mënuñoo jullee timis àlla maa ngi bëgg takk lu mat fanweeri at yu seen tànk duggul fii xanaa dañuy dem màkk waaye comme ki feebar sama taaw la te yaayam dundatul te ñoo fa des kayit santam xam nga ca àddina neexul ñu ñaan mu ci suba lañ fi ñëw ba léegi ñu nga toog di ma xaar xam naa ne teg demuma du ñu yeeweeku ke leen war a yóbbu amin bi jaay rasulillah papaam ñaan ñaanal na ko Maodo Sylla sànq maa ngi ci yóbbante eh, ndax dégg dem bu fa dem ma defoon man nag ak guma fa tey ji fa war dem mu seere maa ngi ñaan yàlla xëy fa ëllëg yàlla na ko yàlla yëkkati yëkkati ñu tëddee ñëpp waaye na la wóor na day tànjaañ gërëm naa la sant naa la fonkoon naa la ci say waajur fonk naa la tey ci sa jikko te say jur yi lu ñuy foor foor jikko yëkku ko uutu nit uutu nit uuteeg moom baaxul uutu nit ba noppi uuteeg moom lu gën ci uutu que nga uutu nga bañ a uuteeg moom defi nag waxam te ñi nga wuute uuteewule rek ñoom yal la yàlla jox eh, loolu mara tëbi bi jaay xel leneen ñu ngi jéem a dellu nag kër ga te di la dénk suñu bopp di la dénk njaboot gi di la dénk xaabit boobu yaa ma ëppale pis dafa fanaa sax dina fi ñëw tey te it nga jàppale nu loolu wóor na ni mu la fonke kaar Euh, amu ci seen groupe bi ku nu fonk woon te bi ma jaxasoo kii rek gis naa loolu gis naa loolu mu wér lool kaar dinañ euh, wéet ak man loolu di ma ci yow lu bari waaw fii mu àgg tey ñu ne doomi sax ne def mbootaay def ko njiit kee tax mu taxu place njiit kee tax mu am fit ne fitu mën ko dox te it laa ko digaloon ndax bañ demee ba war a formé ku nekk président te dox ko ba mu teew ministère bi toog ci baatu kii bi ñu war a fal président bi ci cene dafa am ko wax ne nag mbootaay bi comme toll na fii fekk moom mi mun a présenté na Alhaji Habib pour mu nekk président am ku ne mbootaay gi de doole ji fi mu tollu président bi bu santul mbàkkeet war a sant si nga yàqkati àddina foofu nag Habib Diop ñu am parole na ko na su fekkee sant nag la ñuy topp kat bu yóbba sant la ko ay dara kon nag lañ dem ci ay dara mu taxaw ko nag taxaw tànk yu dëgër ba fi ñu ak si tey liñ doon wut ñëpp a ngi leen di gërëm ndax dugal nañu léegi njàngam lekkool mi ci njàngam lekkool yi tubaab bi quran bi ñii fexe nañu ba Abdou Diouf nangu ko lu bees bañoon Senghor bañoon kon nangu nañ ko ba léegi classe école arabe bi ak français bi ñoo jaxasoo barki dem lañ ko feetal def séminaire séminaire ba def nañ ko ñetti fan tëngi lii kii nag xaar dañuy ñaan yàlla rek yàlla jàppaloon na ko taxawul na ko waaye kaar yonent bi da ne soo jooxee ciw nit te xamul leen tiis dal la fa nga nar koo diis kenn ci nit ña seetal borom kanam gu rafet nga wax ko borom kanam gu rafet jikkoom du ñaaw yàlla ne duma rafetal kanam rafet jikko bu ak boromati islam su bu gudd la benn waay bu tukki natt dal ko fa mu tukkit ñu yóbbu ko yoon suuse ko ne dañ ko yeey ut bés gouvernement bi daje notable yi daje ñu samp turbine yi samp poto biñ koy war a rey bi ko sàndarma yi jiitalee ba muy jub leneen bu ma gisoon chef d'état bi ñaan ko ñu ne ko mu nga ca kaw sàndarma yi xaaral ko mu ñëw ne ko seen day dama doon ñaan bari na suma kër loo xam ne bu ma doxee nii dee dina lënt ba ila yu ma xeex ñu may ma ma dem toppatoo ko te ñëw ñëw ñu ne ko c'est trop tard parce que pay lañ la walaare arme nga daje na ba bi daje na gouvernement bi daje loolu rek tax ñu mën la koo may de ngay ñu yeewi la tey nga dem doxi loola dellu si xanaa ngay kol a doorante ci nit ñi xamu fa nag ñu ngi ceene tànk yi tiir bi baa ngi gudd ñu téye ko muy curpi ni mbaam di xool nit ñi rek di xool di xool turbin bi ba jékki-jékki ne benn waaye eey kay garanti ko waa ji naka man mu ne waaw waa na ñoo te xàll nit ñi ba ci ne buur garanti naa ko signé naa ba ñëwul ñu rey ko ñu yore ko mu dem mbooloo mi tas ñëpp a yeddi ko ne ko yow de kenn mos a li nga def njaboot gi nga yor jaay sa bakkan ci neen xam nga ne kii du dellu si de deegu tooy bu ñu yeewi ba mu dem yow de ndox gi nga def mun a pat waa ji fan yañ ko mayoon ñu dem ba fan ya des benn bés ñëwul te ci ci yoon bu la yoon a reere yi guddi gi ngay mujj ci àddina fa kaso ba ngay fanaan dañ ngay jëli sa kër fanaanaan la kaso ba xëy rëy la loolu la yoon bind ñu toog ba ngoon gisuñu ko ñu jëli waaja nga ko bépp jooy yóbbu ko fanaanaan ko ci kaso ba xëy yóbbu ko fañ koy rëy ndax dafa yàlla nag bi mbooloo mi daje bay xaar heure bi ci tribune yi am ko taxaw ne ah attention li may seen day ni rek nit de waaye daa nga yaar gëléem mi mbéy sa léegi reex nga garab ko reex di def nii loxoom di di dana di ñëw waaye bi yëpp jóg taxaw ne ah lii nit la de attention nit la de ba ñëpp a d'accord ne nit la mu ngi di dareet di waaja ne wëndal gëléem bi sës ko ci poto bi ne képp wàcc يي راجي فنيار يخي تخاو سي بوتو جخن كان جلوم بي دكتا داك كو سوت لي بي دور بون اك اك خالص مان تخو خولانا نك بي خار كو ها سيفنا لي دي كين بوسكو غيس نيت ني راكران دو نيت ني راكران دو وامن يي راجي خاوغا تخكي نياكو بكلو démb nga waroon a ñëw loo doon def nga tardé fan nga passé mu ne ñaari yëfu ma dal sama bàyyi ci sukuraat naa ko bàyyi sama jabar nekk ci mag yàlla dimbali na ma ba bi may génn soxna si mucc na sama bàyyi xamaguma dee na xama deew loolu ma tax a tardé waaw ni dee méttee nga dem ba sa kër wala dillu si wax xam ne wax ne ufu bilaa neen aada kaana mas'uula ñu daal di constitution bi ñu daal di tas constitution bi boole ko ci ne waa ji tax nga garanti kii te xamuloo ko mu ne maam Ibrahima nettali na génn génn tulli gi noonu moo jàpp doomam ji Isxaaqa Yanquba Yusufa ko tulli ga dana leen sa doom yow ma rëbb jàpp ma waaye man réew mi tey laa fi mu si ñëw loola fi indi sama doomi ndey ju ma bokkaloon nàmpal laa dégg ne feneen ma doon ñëw di ko siyaar si ngir dégg ñu ne sa maam na na ko matal kóllëre yàlla doo rakk mu ne addis boobu man itam ko moo tax mu yaa mu gis ma yaakaar yëpp te ko tas sa yaakaar yi naaw la yàlla tas sa yaakaar mu ne ma garanti ma nangu ñu bind ci constitution ba bañ a tas sati yaakaar ak bañ a trahir wóor yow nag defe nañu benn laaj lu tax mboolem daje ko la garanti nga tànn kii te xamula ko mu ne yonent bi du fen te moo noon ne bu la mbir taaratee foo xamul nga yóbbu ko la dina la seeta borom kanam ko rafet naa ñi fi toog ci gën a rafet ma xam ne ne bi du fen ma ne ko garanti ko garanti ko waaye loolu mooy dëgg sunu jotaay bi yal na am natiijatu yal na am natiijatu yal na am natiijatu zaahiratan baatinatan a teg ci seen loxo ba jaay siidil wara nga defal nu fatiha ndax nu amin amin nga iya amin ak ak yow ak jullit yëpp bi jaay rasulillah ñu dem pour mën a yeewi ci jigéen ñi ñëpp waaw mhm. est-ce que est-ce Idrissa day njëkk a yor xali bopp ko ci këyit dabal ko barke di ah, mhm. nga ko déggee di dogul ma ci njabootam mhm. ak waa këram di soxnaam ak jëmmam yàlla yeggale seen lépp te dàq lépp luy seytaane ci seen biir te yaatal seen wërsëg njabootam laa la ñaan ak jëmmi boppam ak i soxnaam kër gi di jàmmi kese ci kaw jàmm rek waaw waaw kay li nga tàgg wax yi kaar am na solo waaye xar mu rëcc te buum nga dogul di lay lay topp ca xar ma du naqaree jàpp du naqaree yow kii ngërëm li mu am ci sa koy woy jur waaye doomi golo naqarewul a jàngal yéeg doomi golo naqarewul a jur li waa ji am sëriñ bi jeexit seetal lii rek kii mandarga rek kii mandara yu liggéey sa bay la ah jotaay bu toll nii du jotaay lislaam ma yeesalaat fi ma waxoon suquma ak moom benn dërëm benn benn benn ngir jotaay bii lu dul di ci yonent bi ba jeex ci tàkk ma xam ne ki ko yar teg na ko ci yoon lii lii lii nen la nen la bu ñu tëjagul ci nen yi natiijatu ki nga xam ne moo ko tarbiya incha maa ngay wéeru ci barke ngërëmal way juróom mboomi bi nangu na natt ngir topp ci ginnaaw rasulillah bi tëriwul dara li mu bëgg ci njabootam ak nga bëgg ko ko yàlla ko yàlla defal am na ci comme ma indil ne ma day dem France. bi ma waaw mu ngoog bi mu laata dem sax laal indi na ko ba ma ñaanal ko. tigi tigi mooy rakkam tigi. dëgg la waaye li ci mm-hmm. mooy ni mu bëggee yal yàlla def leen moom. incha allah yàlla dina ko def. incha allah yàlla dina ko def. sànq waaw néeg bi ma dugal sànq bëggee na. moom ci boppam. waaw amatul xalaat. dëgg la incha allah. waaye njaboot bi. waaw dogul ñu ko rek. incha ba mu dugaloon sànq dama toog ba mu yàgg asum gu ne su jigéen dugg fa. ubbi këf ka génn ci ay weer. mu ne ko góor gi la jur mu ne déedéet doo may sama jëkkër ma ne ko xanaa mooy ki dem tugal mu ne waaw ma ne ko incha allah dina ñibbisee koom fekk ak jàmm booba service bii nga ma teg sax teg ko koomu waaye eh, tahsilul haasili ji arab ji wax tahsilul haasili mooy yaay wàllu si na amano amano kenn mënuloo xam loolu yéen ñi gëm gëm leen kenn xamu ko tahsilul haasili da ko borom bayaan tudde waaw mu kaafatuwaar fa kàll ni ko bëgg ni la ko yàlla defale ci ornay mbooloo mi ak guddik altine gii ñu dugg ak si barke baay bi baax boobu si ñooñu Lusa, Bokusa, Nun, Lucu xam Wah, téeméer bi aja amul wo amul daa mag ñi nag daa nañu jaaxle ci xalima koy bind te àndal ak daa boo ñu ngi nii nag feeñ nañu xalima yaa ngi lu woon waa xale mi nii wa maa yusturuuna abdu mahfusul kubra ak lawil mahfusul suxra lawil mahfusul kubra mooy rasulullah salli ala law ikka xaaj maa li koy ala law ikka lawil mahfus bi taxul muy wax ndax boobu suxra la lawil mahfusul suxra mooy bii ñu jële alquran jële ci dogali nit ñi moom mu ngi dale ci maam aadama yem bu bés biñ ci taxawee loolu mahfusul kubra nag moo la bu ma fos wii li muy doon loolu la bu ma fos suqra la xale bi kooku yàlla waxit xale mu suqra la xale muy kubra mooy ki bindal ruuy muy Moustapha xalima gi jëmme yi la bind ak dat yi xalima gi lay bind ruuy ak ak ak ak xam-xam yi ci barke xalima suqra nag ak kubra leen yàlla defal defal ñiy jàng ñaar ak ubbeeku bi jaay rasulillah